saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Papa Sow ak écurie bu bees bu muy waaj taxawal foofee ca Parcelles Assainies nouvelle écurie o Parcelles Assainies loolee la sunu lamb xëyee tey Papa ma ñu dàq ca écurie Fass ñépp njortoon ne ca Rock Énergie la jëm ci doomu ndeyam Modou Lo njuuy na gaaya écurie bu bees lay taxawal naka lay tudd loolee ci ay fan yu néew danañ ko xam la ma tax xam mooy Papa Sow day ubbi écurie bu bees ca wéet xamle ne Papa Sow

Bruce Lee la karatéka de Fass moom it kenn du ko jiiti ca écurie ba moom usaa ko formé moo ko bëgguloo làmb loolee moo waral fu Papa dugg mu dugg fekki ko meneen mbër may topp Papa ci écurie bu bees boobu bokk na ci Cheikh Ndiaye bu Fass moom Cheikh Ndiaye manager ba nekkoon ca Fass fu Papa Sow gessoo dana ko gis ci ginnaawam ki nekk ci ginnaaw création écurie bii nag du kenn ku dul ba moom père ba fi nekk nii ci gaawtu gu metti la nekk diggante Siteu ak Papa moo gën a sérieux ñu jot seen récépissé am seen écrit bopp la commencé sérieux mooy situation ba VIP yi ci làmb yi nekkee muy Gris Bordeaux di Balla Gaye 2 di di Eumeu Sène di amagul kenn ku ci combat officiel te juróom benn weer a des ci saison bi diggante Modou Lo ak Ama juróom benn weer a des te seeni mbir dara leeragu ca bu ñu jàllee ca la dëgër deux waalo moom Gris Bordeaux la xëye tey Gris Bordeaux est poltron un trouillard yépp mooy Gris Bordeaux da ko doon daw te léegi Gris Bordeaux nee na da koo soxla moom Lac de Guiers moo ko fësal ne am nay jamono Gris xooluma lijjantiwu waaye léegi Gris ku ko jox sama avance mu jël léegi nag ko am na fitu jàkkaarloog man na promoteur yi ñëw bu promoteur ñëwee ba taxawal suñu combat dana xam ne man la fiy fekk ca sunu làmb lañ leen fekk ñoom ñett moom Franc Jamaïque ak Leket Baara Leket Baara ak France talaata bii ñu génn ca Gambie

heure am mise ba juróomi nag laak 830 000 francs boobee day fekk ci Dakar ci arène nationale Eumeu Sène Junior di jàkkaarloog Bour Sine bu Bawol boobu combat diggante écurie Mor lay doon ak Bawol jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën fës ci étu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah